noonu waaye nag ki neex googu noonu nga wax ah. noonu hmm. dafa am ci ay raay yu mu war a tegu te nag nguur gi nga xamante ni euh, ñoo fi ñëw toog bees di hmm. le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak hmm. son premier ministre jamono ji am na ay pas yu am solo yoo xamante ne ñu ngi koy def je pense que deux mois la ñu defagum ci boppu réew mi mais euh, demande nañu à ce que ñu publier li nga xamante ni moo di rapport yi yenn sénégalais yi nag ñu ngi demandé lan moo war a nekk tey ji njeexital gi bu ñu ko euh, publier ba pare lan la ñu mën a xaar maanaam ci ci ci rapport yooyu parce que nag rapport yi bëri na paasan ay coronavirus fii rapport Cour de comptes jamono ji bu coronavirus bi jamono ji ñuy wax restez chez vous. nekk te mhm. ñun ñu ngi toog suñu kër waaye ñoom ñu ngi mujj suñu deret. affaire bandi la ñu def musuma ñi ñi doon seetaan seen TV musuma nangu coronavirus. Hmm. weddiwuma ko de ne am na mais musuma nangu mu sonal ma. d'accord wala mu sonal ma. Hmm. ki nga xam ni bëggul nga gis li ci kaw du bëgg nga teen. waaw ah, loolu dëgg coronavirus mooy mooy daf ci ci dafa bokk nekk benn ci crime yi nga xam ni. Mhm. nguur bi fi nekkoon teg nañu ko crime. c'est un c'est le régime le plus criminel au Sénégal. Il y a eu Senghor, il y a eu Abdou Diouf, il y a eu Abdoulaye Wade, on a senti du banditisme d'État. ak benn mécréance xam nga nit est-ce que xam nga nit mun naa nekk ku soxor wala ku violent. Mhm. mais bu amee imaan rek. soxor bi day wàññeeku violence bi day wàññeeku. mais ñun danoo dal ci noo xam ni gëmuñu dara. ñoom ñu la yar. ñun xam nga ñun doon ñun ñun ay ceddul hmm. ñooñ nag ñooñu raw. Hmm. Euh, euh, kii euh, Salma. nit koo xam ni ci wàllu wéeruwaay. Mhm. ak dékku. amul dundu dundu dundu kilifteef. Mhm. am ku ko naan déet attention. Mhm. bokk yi dark. naan ko naan ko déet déet loolu day ñaaw de. Mhm. te amul loolu. bu la yàlla nattoo ñi la wër jege la sës la rëkk. xamul lu dul boo nee damay tàppit ñu ne nàmmit dolli ko ci. voilà un régime qui était là qui avait tout pour réussir Salman maanaam yàlla jox leen lépp. Mhm. yow na ngay comprendre nga falu rek ñëpp xamoon na ni pétrole ak am na fi. waaw mais nga falu rek mu effectif. Mhm. yow waratoo mer. yow da war a sourire. Mhm. danga war a ree da war a yëg ne que yàlla wa teg na la ci yoonu demal nga liggéeyal ñoom Salma. mais yow foofu nga fasee sa kanam. dëkk bi commencé téeméer. waaw. ñu naan l' argent sale. Mhm. l' argent la ñu mujje dëgg la te pourtant xaalis du salte kii yor xaalis mooy salte. Mhm. wet ca na mu ko amee ca na mu ko jëlee ca na mu ko lijjantee léegi yow nga doon doomi aadama yàlla ju jox lay opportunité nga lank ne doo avancé nga préféré. mel ni l' esclave qui était libéré au temps du roi Christophe ñu ne la demal nga daw ba ci digg àll bi taxaw daal di xool. ñàkk a jom ne ah je vais mën a expliquer loolu nag baax ñaar a koy expliquer. Hmm. sàggan sàggan mooy mooy ñàkk a wekk sa bopp. tu sais ñàkk wekk sa bopp. Hmm. li kaa indi mooy ñàkk xam sa bopp. waaw moo tax japonais yi ñu leen di xamal seen bopp. waaw ci bu ñu nekkee ndaw. waaw. Hmm. dañ lay xamal dañ lay xamal ne la soo tooñee société bi da nga war a xaru yow. da nga war a disparaître. parce que da ngaa tooñ société bi. buñ la corrompre nga nangu ko. Mm. yow da war a disparaître de la société. demal ba ca kaw immeuble ba ca kaw nga tëb wàcc. ñu mm-hmm. solo. fii Sénégal dañ naan ah julli du xaru de te pourtant julli day sàcc. de ci réew mi. ba ne ar dem màkk. Mm-hmm. naan da ngay toog. umra naan umra. naan non non man chaque année ça fait dix ans quinze ans vingt ans moi tous les ans je suis à la Mecque ah je ta lagara ba ngandega dégg nga wax bi mhm. ñu teg budget réew mi tegal la fii teg teg teg nga njuut njaaj fii njuut njaat fii njuut njaaj fii sol yu weex tàll bu àjjuma jotee nga sol sa dara mhm. te doo julli ji jumaa mhm. wuyul lii ah ma ne ko mu ngoog de ah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim yàlla nañu yàlla dool sutura ma ne ko yar kurusam yàlla nañu yàlla dolli sutura maanaam dama la ne mhm. soxna si waaw yàlla moo bind Sénégal muy réew boo xam ne dafa bëri contradiction ak paradoxe mhm. mais quand di réew bu ñu baax bari dëgg la ma jàpp ni Sénégal yi sax ci boppam dafa baax mhm. est seetlu nga loolu waaw Sénégal dafa baax man président Macky bi ma xamoon doon ko gis avant muy nekk président président Macky Sall bi bu faloo. man dama ci am jafe-jafe dama toog mu yàgg ma ni waa nit bee changé wala nit bi moo ñu nëbboon boppam. Mhm. président bi yàgg na de. moo moo def verte bi nii. ndeysaan. ma ne ko moo def verte bi mais kii kii nii nii jamono bi kii mënul soxor. qu'est-ce qui s'est passé c'est le pouvoir qui t'en fout wala. je pense que wala wala est-ce que du da da dox ak jikko yooyu aussi mu nekk ci yow. waaw dara mën na nekk ci yow xam nga souvent dañu naan nit bàyyi leen ba mu am teraanga ngeen xam. moo la mm-hmm, kan nga xam mooy kan. Mm-hmm. souvent léegi-léegi nit Ismaïla way na ko léegi nii nit nekk koo xam ni mel ni Baye Assane rek nii xam nga suñu yor ma tus lu suukar ci sum bi. Mm-hmm. léegi Baye Assane dina dina waxam bi dina neex dina rafet dina jub dina ñoon ak a dëggu waaw waaw. kii daa dëggu. Baye Assane kuuti rek yàlla ubbi bunt rek Baye Assane commencé oui c'est-à-dire. Mm-hmm. di commencé di gàtt wax. waaw fuuy dof. yàlla ji nanguwaat affaire bi ne waaye kii ndeke dof la ah. mm-hmm. ki man waaye c'est vrai que dama ko doon seetlu waaye dof rëy la xaaral. Mm-hmm. yàlla jox la nguur jox lay opportunité ne la construire ce pays ngeen di àndandoo parti politique qui qui existe en 2008 2009 2012 vous prenez le pouvoir 2012 2024 vous n'existez plus. parce que Sénégal gii dund nañ fi safaan safaan maro boo xam ne. lu takk ci alliance pour la bu jëmoo ñu benn ku ci bokk bu yeboo nga sa uti beneen parti. wala ngeen changer tour wala ngeen ut nu ngeen dee def ndax réew mi. yàlla dogal na révolution moo fi am ka fi yàq dootoo fi falu. yàlla ñu yàlla may fekk ak mais mais kon opposition bi ñuy wax pour waa APR comment ça pourrait se parce que nag man dama xamul bu ñu leen ne waxal lu ñuy wax lu ñuy opposé woo idée lay doon wala waa APR fu ñuy opposé wu ah, fii Sénégal am na ci droit bi nag waaw waaye problème bi mooy xam nga sooy opposé wu day am ñooy ñooy waxal waaw ngay jox waaw booy booy te ñeen ñooy ngay waxal dégluwul la nag yow ah, ngay wax ñu naan accam non eh bàyyi Takaba dégg naa sax yéen ñii ay ay Salma ak ay Moustapha Diop ak maam Biram Wacc yéen ñii. Mhm. yéen waa Walfadjri yi. ak waa Sans Limites yeeg yi dégg naa seen tur yaa nga ca kii ya de maamoon ya ci maamoon ya dégg naa yóbbu nañ leen de parce que nee nañu. nee nañu gannaaw wàcc bi kam wax ngeen ñoom ba ñu wàcc. Mhm. wax gox ki bi pour information man mii. am na ku ñëw ba woo sama jur bu jigéen wax ma ko. Ah, wax ko ah ah dama ko doon wax ci suba Sans Limites ñu may dee foog damay. waaye li nga wax nii te déggante wuñ ci de. ah. yàlla xam na ko mais am na ko ñëw ba wax ko sama waajur bu jigéen. waaw léegi nag. waaye nag yàlla mais baa yëg nañ ni yàlla rek a fi ne. waaye yow yàlla mi la ko yëgloo nag. Hmm, mu ngoog. xam nga mënoon nga ko bañ a yëg. Hmm. waaye man nag man yaakaaruma woon ci àdduna ne ci wàllu defar dëkk ak politique. Hmm. war nañ egg ci niveau de bassesse boobu ñuy wax waxi mystique bi tiimoon sénégalais à un certain niveau. ak li mu def yenn sénégalais yi ak ñu def yenn nit yi. ak cest dire yàqkat mënut a tabax te saan yàq kat dix milliards d'ans. ca lool rek lay dox. yow ñàq nga nguur. doo évaluer xool lu la ñàkkloo nguur. xool fay yi ngeen am yu bon yi ngeen doon def na nasa kandax ya ya bon ya. ngeen dajale ne lii waratu noo dal teg na le. ngeen defaat pré casting ak casting xool ñi meilleur ci yéen te baax ci yéen. te daal leen araftu te si seen biir ña fa nekkoon baax loolu ëpp fa naan leen déedéet. ngeen dellu si ñoon ne wax ngeen dëgg ah waxoon ngeen vous avez eu raison. Ah. ngeen rectifier le tir. dox dox gentleman. mel ne ngeen ne dee bon rek. waaw que bon en vouloir à certains. alors que euh. c'est le peuple qui a jugé nécessaire jëlee la fi. waaw non c'est que c'est que xam nga lan moo la mbir mi soxna si. Mm-hmm. il deux choses. quand vous n'avez pas le génie de votre talent. Mm. day def lenn li Salma. réew li coow li bare bare bare. sortez de Sorbonne sortez de Harvard sortez d'où vous voulez mais li jiitu ci defar réew xam nga la mu doon. ba rafet. xoolal Léopold Sédar Senghor était grammairien académicien ñu naan daanaan la moo créé Essence-Serie ak dégg tubaab. dégg tubaab fu mu yóbbu. ko xëcc. takk ñu waaw. en mhm. baron dégg tubaab. Mhm. sanu ba maam ba baara mbuub waaw déggul tubaab comptoir commercial baara mbuub CCBM CCBM la ay ndongo daara lañu mm-hmm. sëriñ di ñëw di jël di yégal di yégal ba teg Touba Sandaga Volkswagen ñëw Samsung ñëw mm-hmm. sëriñ di gérer xulil di dugg Afrique de l'Ouest di yéeg di wàcc mm-hmm. di làkki tubaabam xoolal jàngkat yi sunu classe yi toog naan boo il parle pas bien français <laughs> xule oui ma te yow Serigne moo lay fay. waaw oh, moo ma jaaxal tamit. ndeysaan Serigne moo lay fay salaire un million. Sénégal ma fay la ba pare jox la ay instruction bindal ma lii. li ngaa bind Serigne mënu kaa lire dégg ko waaye Serigne dem na ba yow li ngaa benn mu la ciy corriger yow. dëgg la naan la non non bi attention. Mhm. te aw àll diw a génnee fii. Mhm. pour wax la. la réalité des choses. Oui. nous avons vécu le surcomplexe. Euh, daw dogguma la paasan foofu laay duggee ci Cheikh Bara Ndiaye. oui Cheikh Bara Ndiaye maanaam man man man man dama ko man dama koy bëggee. parce que Cheikh Bara non seulement amul complexe boobu noonu. gis nga ci jotaayu réforme ba nit ñi toog teg la ay tànk. Cheikh Bara toog na ko nam ko sentiree moom. sol na la ko neex te bu waree wax dina ko wax nam ko mu ko yëgee te sénégalais dinañ ko dégg ci ni mu ko bëggee donc loolu rek ay exemple la nit da ngay gëm sa bopp ça veut pas dire que jàngoo ko amoo compétence wallaahi xam nga xam nga xam nga Salma mhm. dafa taw exemple yooyu daf fi bëri à mhm. foison sunu baay bi Bocar Samba Dièye jamonoy président abu juuf heure bu dëkk bi mettee ñu ne ceeb màggat mhm. Bocar Samba Dièye moo yor solution bi gis nga loolu su laa nettalee ni mu ñëwee ndakaaru ni mu tàmbalee ni ci ngay xam ne yàlla moo la yàlla la meilleure connaissance dans le monde mm-hmm. le meilleur savoir qui puisse valoir et prévaloir dans la vie mm-hmm. c'est justement le vécu xoolil mm-hmm. li nga dund moo la école la ca des technicité la ak technique d'organisation de pratique tey ki nga xam ni mënul lire mënul bind su wàccee Istanbul. lépp dañ ko bind. bu wàccee Istanbul moom la la mu manqué ca lecture. waaw dabu ci observation day xool nit ñi. xool xool déggu làkk ba. mu xool nit benn moo la kaa wax. straight straight. waa ji na ko what straight. waaw. mu jël kayit génne ñu bindal ko. 283 nangam waa ji ne ko oh ok go there. Mm-hmm. dem dox sa soxla. mu def ko benn yoon defaat ko ñaar yoon ñetti yoon ba miin. Mm-hmm. sunu mbokk yi nekk ci secteur secteur informel nu ñuy def ba def ba dem Chine jënd régler lijjanti indi te dégguñu ci benn làkk di dem bay làkk chinois. di dem bay làkk anglais. Mm-hmm. di dem di dem di dem pendant ce temps benn. Mbaye Samba soxo soxo toog fii naan waa bon moi j'ai fait ma thèse en xulil baax na de. baax na trop sax. waaye xulil ñu jox la dëkk bi. nga taal daay bi. ñu jox la mbay mi dénk la ko xulil nga suuxal mbay mi. Mhm. te nee nañu yow yaa ci am xam-xam. Mhm. baykat bi nekk fële buñ ko dénkoon mbay mi mu doxal ko. la c'est pour diir mhm. que li gën a important si dund. mooy l'expérience de la vie nga sukkandiku ci échec ya nga ca am pour réussir. Mm a subi un régime bu fi nekkoon boo xam ni ñoom dañoo manqué talent soxna si. Mm-hmm. léegi nag carence ba leen dal ñu mottali ko ak soxor. Mm-hmm. te yow boo manqué talent da ngaa war a baax. dëgg la boo baaxee sax nit ñi de ah pour ndeysaan day rey rek. waaye yow nga manqué talent teg ciy mer. fa sa kanam. guux nu jiim ñu yàddu yi yat. mataraak di dóor. moo tax yàlla dimbali ñu. ñuy dem acteur politique bu ngeen am mu nar a jàkkaarloog yéen ngeen ne da ngeen kaa faagaagal. Mhm. ba jot ci daj dëbb gi. ci àdduna xam ma léeg-léeg ngay ngay def lu la neex di dem di dem jékki-jékki nekk benn mbërum gàmm bu ku ñëw nga trash. Mhm. jékki-jékki benn xale ñëw taxaw daan damay bërëg moom. waaw nga moom fu mu toj. gars yi xale bi day foo wala lan. Mhm. xeeb ko nag teg yow mbër mi nga toog naan. ndeke yàlla ne sa gannaaw. wallaay wér na. yàlla ne réew mii sunu maam Serigne Cheikh da ko daan wax. Mhm. réew am na fu moo toll yàlla mooy taxaw. Mhm. ngeen def li ngeen di def nit ñi mënuñ ci dara di ko def defaat yàlla ne xaaral ma rek la lii. Mhm. jaam ya di jàpp di julli ngeen foog ni senegal yi seen ñaan day day jaas Sénégal yi da doon jàpp di julli di ñaan yàlla dimbaliñ ci nguur gi. nguur gu bon gi jëlee ko fi. ko bëri woon. sanu maam Serigne Cheikh la mu wax daal day am yàlla indi blocage. dans le monde ci adduna ou le cosmos cosmos bii am ci àdduna day am <clears throat> les envoyés de Dieu dañoo bëri forme ak façon et souvent ils sont ñii ce sont les prophètes ñii ce sont les libérateurs d'accord ok le Sénégal a été libéré oui gis <laughs> de 2019 à 2024 bii su face to face amuloon hmm. kon heure bi doo fi toog di émission de. ay ay toog ay toog ci antenne bi nii di wax. nii nii dama la yóbbul añ kon heure bi kay moom kan nga kan nga déet ñeneen ñi kay ñoom maam biram nga yóbbul añ man man. xulli dama dootul wax rëbës wala rëbës dootul wax ma ne maam biram ngay yóbbul ak ñoom Moustapha Diop ak ak ak ñoom kii. ayo baax nga ca